une élection qui qui qui doit se faire sans euh, Macky am ngeen droit nag bu seen candidat yéen waa APR yéen waa Benno mais nee nañu loolu moom duñ ko waxtaanee en fait. xam nga xam nga loolu mooy d' abord bañ a ba tey si seen doxalin ba tey bañ a respecter la justice. candidature wax naa leen gis ngeen amul benn texte ci Sénégal. Mm-hmm. bu tere nit nekk candidat amul. conseil mooy apprécier après. conseil constitutionnel lañ wax ni na saytu ñi déposer seen candidature est-ce que mat le nañ lépp lu ñuy xaar ci ñoom. constitution nag ne lii ak lii ak lii ak boo ko nekkee waroo nekk mënoo nekk candidat président lii ak lii lii boo ko nekkee waroo nekk candidat député lii ak lii boo ko nekk boo ko amee mënoo nekk candidat maire mais loolu bu état bu candidature yi amee citoyens yi ñooy désigné ñu ne diw moo suñu candidat citoyens yi ou bien parti yi ou bien coalition yi ne diw moo si candidat ñoom nañ toppatoo seen candidat ñun waa Benno ou ñun waa APR ñu tam ñu toppatoo kuy nekk suñu bu ñu paree ñun ñëpp ñu ferum tulaayu xaar conseil constitutionnel kuy wax leneen da ngay bëgg yaakaar ne mën nga xëbal nit ñi mais fi passé nañu fu ñuy xëbalee. Mm-hmm. fu ci nekk et man dama jàpp ni Mamadou ni ñu waxante dëgg le fondement c'est pourquoi d'ailleurs je suis un peu étonné parce que pourquoi on a peur du peuple quand on dit que le peuple est avec avec avec ñoom ñuy wax ni peuple. le peuple est avec la mais écoutez. question de bokk un point c'est mais ñi ko ñi ko waxoon en 2012 Abdoulaye Wade bokkul. si nañu waxante dëgg Abdoulaye Wade bokkul bokk na. mais bu mu bokkee c' est la c' est ce n' pas la même chose parce que bële ça c' est beaucoup plus flou mais bii c' est plus clair. <laughs> parce que constitution première en fait le Sénégal venait de vivre ça. mais moo gën a leer moo gën a parce que bii conseil constitutionnel bu muy wax en 2016 dafa ne loi mandat bi c' est hors de la nouvelle constitution. lan moo ko teree bind ci constitution bi kon mu leer. arrêt kay. arrêt coow am tey. mais arrêt arrêt arrêt. les Sénégalais ne savaient pas ce qu'ils votaient. mais arrêt arrêt du source de droit te boobu bala arrêt boobu moo jiitu vote bi kon leeroon na nañ arrêt boobu moo jiitu vote bi donc leeroon na nañ bu président Macky Sall ne dafay wàññi mandat bi nañu fàttaliku li conseil constitutionnel wax mais li gën a am solo li ma wax. c'est le peuple ki qui est souverain. Ouais. c'est le peuple qui vote mais lu ñu ragal fii lu fi am lu ñu ragal peuple bu ne àndul ak Macky Sall dana ko exprimer dans les urnes. bu ko exprimer dans les zones comme Abdoulaye Wade comme Abdou Diouf Macky Sall se pliera à la volonté. mais est mais nous sommes des démocrates nous sommes a perdu c'est vrai Abdoulaye Wade a perdu. c'est vrai mais amul lu muy forcé. d'accord bu bokkoon ni perte élection bu bokkoon bu bokkoon peuple bi. ne ko déet ne ko déet. quelle honte a-t-il y a-t-il à perdre des élections en démocratie quelle honte y mais au contraire pourquoi la question bu nga war a poser. Mhm. mooy pourquoi les gens ont peur que Macky Sall se présente. est en politique pourquoi ont-ils peur la fekkee ni Macky Sall fausse la Sénégalais yi bëggatuñ ko. Mhm. kenn comme ni ñu koy waxee. Sénégalais bëggatuñ ko xale yi ànduñu ak moom nañ dem élection. ah monsieur le ministre boobu jarul xuloo. jarul rey nit 11 mois jarul saaga nañ dem dimanche. février ku nekk benn def.